jërëjëf euh, mbokk internet yi ñoo ngi leen di ndokkeelaat di leen ziar wér-wér tey nag euh, man buur nee naa maay dugg fu ne Euh, te ñu seet si nit ku baax nit ku yàlla baaxee xam-xam di Cheikh Lamine daanaka moom du feeñ ci écran mu ci feeñ waaye tey dama ni man buur maa bëgg a gëstu ji xam-xam ak ñaan yàlla ba tax ma fekk ko fi mu toog wañaar loxoom ne ko tey nag di nga ñëw wax rien que ngir mën a dimbali jaam yàlla yi waaye rawatina les sénégalais de la diaspora Cheikh Lamine ñoo ngi lay nuyu di la ziar Euh, buur maa ngi lay fay bu baax di la siyaar di nuyu mbokk àdduna bi yëpp di siyaare ñëpp nag di masu ñëpp ci xew-xew bi mbas mi. Cheikh bi ñoo ngi lay jéggul tey moom dañoo ñëw uniquement wañaar sa loxo. waaw nangul naa la parce que xam naa sa dëggu ak sa kóolute ci ci ci àdduna bi waaw. Euh, Cheikh Lamine euh, ñu bëgg waxtaanee buntub ñaan yàlla. Euh, ñenn ñi sax di dem ba de bay dugg ci xeeti ñaan yàlla bu ci mel ni euh, listixaar ak ak yu mel noonu euh, est-ce que yomb na yomb na yomb na. déedéet yomb de ndax xam-xam li ñuy jàng am lu yàlla maye mais xam li ëpp xam-xam la bu ñuy jàng waaw te ñu ko yàllaay may. mooy ñi ko jàngoon seeni doom des wala luy demee noonu yàlla dañ leen koy may mais listixaar xam-xam la boo xam ne sax na ci yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan ko def baat la yooyu wax te di xaar géwént géwént googu bu ñëwee des na beneen xam-xam mooy nga mën a firi géwént ba xam listixaar gi la wax loolu tamit beneen xam-xam la moo tax listixaar yombul waaw yombul te gent ñetti xam-xam koy firi xadis ak alquran ak bi ma waxul. bi nga waxul mooy ba. boobu denc naa ko. <laughs> tey ñu ci bari ñu ngi wax ci wàllu seet. Euh, ku ci nekk di ci wane sa bopp. ñii naan euh, ñi di seete lu jëm ci wàllu ulmu nujum ak yu mel noonu seet est que. seet euh, bunt la wala aw yoon la. waaw xel mu nujum moom du seet maa ngi jégg lu ñu ko wax. mais xel mu nujum du pour seet xel mu nujum xam-xam la boo xam ne dafay jàngale biddiw ak temps comme buur nga ñëw na ma weeru olof tey ñaata fan la am maa ngi la xaw ma ko de waaye xam nga weeru tubaab ñaata fan la am nga ne waaw ma ma ne ñaata fan la am nga ne ma am na tey. douze douze mu ngi toll ci douze jours am na calcul yu may def sukkandiku ci àlmu nu joom mu jox ma ñaata fan la weeru olof am elmu nu joom liggéey loolu elmu nu joom dina liggéey nga ñëw buur ne ma dama soxla nangam ma sukkandiku ci am ni joom xam waxtu wi nga xam ne waxtu li jaaba la wutanku ci yow nga xam ne waxtu woowu su ma ko defee su ma ci ñaanee loolu dina nangu waxtu woowu du passé cinquante trois minutes cinquante sept cinquante huit ndax minute matut soixante waxtu matut soixante minutes mais bi nga xamee nag ñi tëral waxtu xam nañ nit ñi yaatuñ xam-xam ci côté boobu ñu ñu def ko soixante minutes mais at bi benn yoon la ci waxtu di mat soixante minutes waxtu matut soixante minutes lépp cinquante sept yooyu. moo tax léegi nga gis ñu ne weer wi 31 la weer wi trent la olof yi weer olof yi ñu ne weer wi 29 la la waxtu moom matut 60 minutes. kon ñi ñi yëngu ci wàllu asraar di ci jëflanteeg nit ki est-ce que asraar euh, taxawaayam euh, jëflante la ak nit ki ci wàllu ñaan yàlla. asraar mooy xam-xam bi ñuy sukkandiku nag di ñaan yàlla lasraar moo lay jàngal. fooy jaar ba jëriñ nit ki ci wàllu xam-xam la it nag buñ tabax ci fondement yu dëgër yoo xam ne dañ koy jàng xam ko lu ci nit jàngut mën nañ ko ko baaxee mu mën koo def waaye nag xam-xam la bu jàng lasaraar moo dugal nañ ci listixaar dugal nañ ci almu nu joom te almu lim ciy def mooy limala wax nii seet waxtu lijaaba wala Euh, waaj yi luy biddi luy xanaa siram on siram waxuma biddiwam on ba loolu lañuy tuddee biddiw nag ci ci ñu bari te loolu bokkut ak biddiw su ko defee on sur boobu ci ngay xamee burjum kañ la fenq fenq na jamono bi wala fenqut fenq na bi mu feqeeg léegi ñaata minute la du mat ay fande du mat ay waxtu de ay minute la minute yi du mat 60 tamit ci bis bi loolu la ñuy sukkandiku pour xam waxtu bi nga mën a toog ñaanal waaju mu nangu. loolu asraar mën na ko. loolu asraar moo ko jël ci elmu nujoom mais elmu nujoom xam-xami biddiw la ak weer wi ak jant bi ak temps bi nu muy soppeeku dina taw du taw waxtu wi temps bi day tàng day sedd elmu nujoom xam-xam la bu fàq foofu. loolu la waaye nag dugal nañ ko ci biir lasaraar di ko ci jëfandikoo. li ngay jëflanteel balaa ngay jëflanteeg ñoom danga koy seet ba noppi. waaw da koy seet ba noppi te lu gën a bari nag boo ko seetee di nga xam soxla bii dafay sotti wala du sotti boo bu dul sotti boo ci duggee yow la neex bu sotti di nga xam ne lii mën naa ci mën naa ci su ma defee lii ak lii mu sotti loolu ku mën seet da ko xam te soo ma laajee xeeti seet yi man loolu ma wax la ko. seet yi. seet bëri na ay xeet. waaye man xam naa seen yaay di leen jur ñoom ñëpp moom lañ tuddee ramli. mooy ramli mooy ramlu mooy balañ mooy suri salañ ñii da wax balañ mooy suuf bu nooy bu xonq boobu te bëri loolu mooy ramlu ñu tuddee ko nag xeet bi lu tax ci suuf lañ koy def dañu wax ne yonent yàlla Idris te lii ma lay wax boo demee ci téere bu ñuy wax man boo mul usooli ramli te Seydi Tuuqi yi bind ko muy eh, eh, mu dëkk Xaahira Euh, mu ne yent yàlla Idrissa la Jibril ñëw ne ko xeetam bi ko yàlla yónnee ñu ngi oote mais gëmuñ ko yàlla nag jàng jox euh, Jibril Ramli mu indil ko ko ñëw jàngal ko ba pare ne ko seetal mu fa Jibril ne ndax melokaan ni li dikkee ci moom mu xool ci asamaan yi gisut ko mu xool ne ko mu ci kaw suuf mu ne ko fande ne ci suuf mu tëgg Ramli bi tëgg tëgg ne ko bu dul yow daal xaw ma fu mu ne mu ne ko yàllaa ma indil xeer wii pour nga ci wax sa xeer wi seeni soxla pour ñu man laa gëm ne yàlla la yónnee lii la Seydi Tuuqi nettali ci man booy usuli ramli nettali ko ci usulul usuli final mi ramli nekk la nettali ko it ci xaayatul amal ay téere la yoo xam ne moom moo ko te wax ci xam-xami ramli waaw lii la nettali xam seet boobu nag ñuy wax ramli mooy ndey seet moom laa xam ci seet boo xam ne yow boo demoon ci station bi benn waay rek jox la fa doomu guro nga ñëw ne ma damaa tëjee benn waay mu jox ma doomu guro ci xam-xam boobu mën naa ci sukkandiku ne la waa ji nii la tudd. waaw. ci xeetu seet ramli boobu. waaw te ñooy seetaan ci ay sëriñ te xam ma ci ramli xam nañ la xam naa loolu. kon yow fu waay nekk ci àddina bi mën nga jëflante ak moom te du. foo ne ci àddina mën naa jëflante ak yow. te duñu am benn problème. kon sëriñ bi des fois dina la arrivé nga xool mbir nit ki mënuloo ko mënuloo ko dimbali ci ñaan woo ko ba mu ñëw nga wax ko yëkkati àllam jox. waa loolu dana may dal léeg-léeg ma jëflanteeg nit du sotti ma woo ko ne ko ah, ñoo waxoon euh, dama doon ñaan te teg naa nag ci xam-xam yi nga xam ne ci li ñuy tege mais nit ci li muy liggéey ci lay juum dama juum kaay ma dellu li ma la joxoon ñu bari dañ ma naan sëñ bi nii nga amee dëgg wax ma ko bàyyee naa la ko léegi mais may naa la chance ñu continuer loolu danay am. sëñ bi euh, sénégalais yi nekk ci diaspora bi euh, ñu ci bari ñu ngi joytu ci seq naag diw ñaan yàlla mu lekk sama xaalis woowatuma te ñu ci bëri soxla ndimbal ci nitu yàlla. buleen di mën a ñaana lu ñu teg seen bët même bu ñu ci teg seen bëtit ñu wax leen ba du ñu mën a lor. moom ma ñaan bañ teg ci bët mën a ne mais na tegee ci cadre ñaan na nga xam xam-xamu seet bu wér ba mën a xam ci mbir yi dara na nga xamit gannaaw xam-xam boobu li ñaan di jëfandikoo moo xam xaatim la moo xam jat la moo xam fas la xam nga loolu lu muy liggéey. bu dee xaatim la wala jat la wala pas la wala sunguf la wala ren la ñoom dajee nañ ci benn barab boo xam ne boo leen fa fekkee doo xàmmee xaatim bi ak ren bi ak ak kii bi waaye li muy jëriñ mooy waxtu woo daggee xaatim ci ko war a daggee defaral ko rawxaan yi nga ko war a defaral ak xuddaam yi nga ko war a defal xaatim boobu dafay créer benn mbindeef laa ko mën a waxee xam nga mbindeef yàlla koy defar mais nag dafay créer benn rawxaan boo xam ne rawxaan boobu dafay dox ci li ko li nga ko sant mel yow mu defaroon euh, loolu ñuy defar te muy dox nu mu tudd. rëboo rëboo yow mu defar rëboo ci mu mémoire rëboo bi li nga ciy enregistré loolu loolu loolu lay rëboo bi di dox. xaatim bi tamit dafa xam rawxaan yu muy créé boo ko defaree rawxaan yooyu dañuy dund mais ci xaatim bi la ñuy dund tant que tasoo xaatim bi rawxaan yooyu dañuy fonctionné. rawaxaan yooyu nag lii dox ci seen mémoire yaa yaa ko ciy def yaa leen di waxal ki nga soxla yow moom rek la ñuy xam nag ci àdduna ci moom lañ jëm tam direct li nga bëgg ci ñoom foofu lay dem directement waaw loolu fokk nit xam ko ci ci lasaraar euh, mën na ñaanal nit ba mu gis sëñ bi ñaar yi jigéen ñi dañ ma koy jooytu mooy liy dëgëral say benn jibale jëkkër ak jabar ak ñi nga xam jigéen ñi nga xam ne seen i jëkkër dañ leen a abandonné. am jeneen soxna baleen fa. lijjanteetuñ leen ak seen doom ñu jaaxle lool lool lool lool ñooñu euh, sëñ Lamine ni mu leen mën a dimbalee bi wajilaahi karim. yooyu am na xam-xam yu wér boole ay nit. yu waroon a ànd te seetaan dox ci seen diggante seetaane soosu dama ne na la buy dox rek da ngay fexe ba xam seetaan si soosu ban xeet la nga defar xaatim wala pas la wala euh, luy jat la buy créer rawxaan boo xam ne day ëpp doole rawxaan boobu pour éliminer ko waaw waaw éliminer ko mu génn ci seen diggante nga boole leen waaw loolu nag da xam xam-xami ñaan mm-hmm. waaw ñaan am na de sëñ bi kon xam-xami ñaan ndekete nit ki mënta doon ñaan ko yàlla te jàng ko ko de boo ko doonee sax man sopp naa nga dem jàngaat ko waaw sopp naa loolu parce que euh, ni rawaxaan yu bëree yii di la dimbale yii di la waxal lu baax yii di la jox lu baax am na yeneen rawaxaan yu lay contour di la digal ci buur loo xam ne wax la ne buur tey nangam te fekk loolu du dëgg pour pour pour tamit indi lépp perturbation waaw waaw foo gis lu jub rek am na lu dëng ku la seen xalax naaw soo jëy ne loolu alquran wax mbir mu ne yàlla mu ne ñaar la ci bind comme guddeeg bëccëg suba ngoon euh, euh, asamaan ak suuf góor ak jigéen waa rawaxaan yu baax ak mooy wàllu tële mag ñi amoon nañ ci ay secret ci ñaan yàlla ba ku mu dalul du la dal wala ku mu dalit ñu mën la dimbali waaw man bu ko waaju juddu xaalee awma ci pexe bu ko judduwaalee awma ci pexe mais bu ko judduwaale wut te feebar rekk la mën naa koo faj su ma ko su ma xoolee ne kii da koo judduwaal xam dina feebar na dina yegg foo xam ne du neex a faj waaye loolu tam dañ koy xam mais nit ki boo ko ne mën ngaa wér faj nga ko boo ko ne a ah, sa feebar bii ci li ma xam man man mënu koo faj ba tey faj nga ko te ñaar yooyu laa jëfe naa ko kum dal nañ garab yu ñu lay jox yoo xam ne feebar rek la dafay deñ boo ko judduwaale nag man awma ci benn xam-xam waaw. Eh, dafay dañ bokk judduwaale aw ma ci benn xam-xam sëñ bi léegi ñaan yàlla fi mu ne dajale ne réew mi eh, ba ñenn ñi ñu ngi jëfandikoo lu mel ni ay wàllu ay tuur ay fétiche eh, yoo xam dañ ciy tuur direct wala sàngara ak yu mel noonu di ci ñaan yàlla donte que ñenn ñi sax boo leen laajee dañ koy layal nela dañ ci dañ ko am ngir dimbaleeku nit ñi nga xam dañ leen def lu mel noonu. waaw ñaan yàlla bu ñuy tuur deret bu dee sarax la ma dimbalee ko lu bari ci suma mbokk yi dox ci eh, sëriñ sarax bu fekkee da ngay rey yéene bi waxal ne dangay ngay pour jaamoo ko yàlla gannaaw boo ko jaamoo yàlla nag mën nga ci teg ay ñaan waaye eh, tour deret rek noonu sans yéene du nekk sarax subaa dafay génn cadre l'islam bi ñu xam boo xam ne sëriñëb lislaam waru ko jëfandikoo ñeneen ñi ko moom nag ñooñu soo leen ko laajee ñu wax la ci dara mais bu dee ci biir lislaam la sëriñ bu sol nii ma solo nga xam ne jullit la buy rey ay tuur ay yeneen am na baas bu mu koy defee boo xam ne dafay tënk ci biir diina su génnee diina nag kon man xawma ci sëriñ boobu li mu jàng bokkut ak man li ma jàng euh, sëñ bi lu jëm ci wàllu yëkkatiku ñii dañ ni dañoo bëgg yëkkatiku ñii ne kat dañoo yëkkatikoon ba mu yàgg mel ni seen i mbir dafa fay ba yitte woon nañu lu leen lu leen yëkkatiwaat. waaw loolu am nañ ci xam-xam yu wér yoo xam ne koo xam ne dafa nekkoon ci dara mu commencé fay moo xam musicien la moo xam euh, société la moo xam footballeur bu fay la moo xam mbër mu fay la fay. ñu tàkkalaat ko ba mu dellu ci xeli jàmm yàlla loolu am nañ ci xam-xam yu wér waaw maa ngi ñëpp nag laay waxat mais ku ñëw ma ne la ah, xool ko ne la yow mënuma ci dara xamal ne du du lépp lañ man waaw pour mu si daal boo ñëwee dina la wax dëgg lii su ma ne mën la mën na nekk su mënta nekk mën la mënut nekk ak foo mën ne ci àdduna waaw ndax man yàlla daf maa may xam-xam bi ma jàng ko xam ci lu bari eh, niw na nga toog ci man wala nga wax ma sa soxla ma xool ko te duma xam ne mën na ne wala munta ne su munta ne dama la koy wax su mu nee ne ma wax la ko boo yàkkamtee it danaa xam temps lu gën a bëri du ko nangoo jëfandikoo dama naan dañuy ñaan rek waaye fekk man dinaa xam ne temps bi war na mën a nekk. waaw loolu nag dafay fekk ma teg ko ci fondement yi xam-xam yi nga xam ne mooy fondement yi lasaraar loolu mën naa ko. sëñ wàllu xeex. xeex maanaam. xeex comme ki bëgg a boppam bëgg wala boog ñu sonk ci ab xeex bu mu bëgg yàlla mucc la. man am naa ci euh, ci aarwaay loo xam ne su ma la ko joxee lu ñuy wan la ku la xeex gaañu. da ngay am am assurance bu wër waaw. moo xam korte la ak lu ñu la mën a sànni. korte la lu ñu la mën a sànni ci féticheur bi la jógee ak fu mën a jógee antimissile yooyu uh, am naa ko. sëñ bi de nee na mbërum làmb la moom day daan rek. te daa bëgg a tàqali yàlla di ko may ndam. waaw léegi nag. mbërum làmb moom danaa seet lu koy daane lundo léeg-léeg moo ko wax léeg-léeg moo ko def. léegi léeg nag waxut ko defut ko mbir yu xew su dee mbir yu xew la mën nañ ko dindi. waaye bu fekkee luy bàyyi ko ci moom. fekkee luy bàyyi ko ci moom lu mënuñ ci dara moom mooy bàyyi lool rek parce que am na loo xam ne xanaa xamu ne sëñ bi li tax yàlla ay fen ay jëw ay rambaaj wax yooyu nit ñi di wax dafay créer ay roxaan yoo xam ne tamit dafay yàqal laate fi mu jógee. léegi nag su fekkee loolu la roxaan boobu moom moo ko créé ci ay waxam mi ki ku jatoon créé benn roxaan buy def dara wala def xaatim créé roxaan buy def dara waaye itam wax ci ay waxam ci nit loo xam ne jural na ko roxaan buy def dara ci moom di ko yàqal kooku wax dëgg yàlla man amaguma ay garabam. man au amaguma ay garabam sëñ bi am na koo xam ne danaan moom lu mu yaakaar mu tas lu mu yaakaar mu tas lu mu ba def ko ci xel mi mbaa mu wax ñaar nit rek yaakaar jooju tas na. loolu ñaara koy yu bëree koy indi ma limal la ci yii nit dafay catu boppam am na koo xam ne cat bi ko yàqal làmmiñam la moom ci boppam mooy am dara waxtaanee ko waxtaanee ko fu ne ndeg yaakaar ju yàkkamti mu yàqu am na koo xam ne nag du loolu benn dañ koy xeex walla am na seetaane yu ko yàqal ko dee xeex la mën nañ ci dara beneen seetaan lu ko yu ko yàqal la mën nañ ci dara te lu gën a bëri na nit ñi bi nga soxla dara nga gént loo xam ne ngay faral di gént loo xam ne saay boo ko géntee soo amee yaakaar rek loolu tas nga xam ne am na seytaan yu la yàqal seytaan yooyu nag am nañ xam yu koy éliminer yenn yi duñ ko mën a éliminer mais dañ la wax loo xam ne wala ñu jox loo xam ne naa la di ko gis de mais dootoo yàqule bi nga ko gis dootoo yàqule xanaa sama laaj mujj rek sëñ bi ñun ci wàllu actualité kon ne xam ne ni jamono ji réew mi lëndëm na Euh, benn mag bi nee na buur man di dama tiit ndax suñu kilifa yu baax yi di wàññeeku rekk ak jàngoro ji ak réew mii lëndëm ku ci bëgg mucc ci wàllu ñaan yàlla. waaw loolu jaaxal na boroom xam-xam yu bari nag man bokk naa ci ñim jaaxal lu jaaxle la waaye jamono ju ne dafa wax ne. alayhi salaatu wasalaam xeet wu ne. su leen yàlla di tànnal njiit daan leen tànnal njiit lu mel ni ñoom bu ñu baaxee mu tànnal leen ku baax mu jiiti leen di leen dimbale suñ bonee mu tànnal leen ku xis xol ku dëgër xol di leen bugal su fekkee ne nag dafa yàqu ba ku nekk lu ko neex def yàlla jëlee fi ñu baax ñi indi ñeneen ñu leen yar man loolu laa gis ñoo xam ne dañuy tàng di leen yar di leen di leen sonal di leen métital di leen duma suñ moytut foofu lañ jëm danañ yàlla musal ci loolu si Lamine looy tàggu. maa ngi gërëm maa lay gërëm di gërëm sa àndandoor yi yëpp di gërëm seen yëngatu bi di kontaan ci tànn bi ngeen ma tànn ñëw waxtaan ak man ci li ma xam ci lu dara maa leen di gërëm ci loolu. Euh, di gërëm mbokk yëpp nag su fekkee jum naa maa ngi jégalu waaye xamle ak euh, lu dimbale euh, àdduna bi moo tax ma d'accord waxtaan ak yéen. sëñ Lamine waaye di jaam ñi dañuy dimbali euh, dañ leen a bëgg dimbali ngir ñu mën a xam ci kër gi fii. fii nii mu ngi Médinari 45 en face bureau Asalem téléphone bi 77 505 68 99. Eh, yeneen yi mokkaluma ko nag xanaa su ma la ko waxee après yow nga kii ko. waaye waaye boobu daal mooy whatsapp bi moom. waaw boobu am na whatsapp waaw. sëñ daal koo woo jot ko. ku ma woo jot ma soo ma jotut fekk maa ngi ci dara su ma paree su ma gisee numéro bi danaa ko rappeler. jërëjëf sëñ